seere bu njëkk ba ay ñett dërëm nan la daan dektal di la laaj ay ñaari àndaar di la laaj ay caqub peme wala peñub suukar wala keesu ga bu jëkk bu njëkk voilà waa dama ne mbërum làmb di nga ko yor di ko ngemb ci préliminaire muy am soixante mille quarante mille quatre vingt mille ngay fanaan ci ab der nga dema dem ba dégg ne mi ngi ci cent millions wala cent cinquante millions ma dina la joxub junni ngay fanaan cib der loolu xel nangu na ko. ah loolu ça dépend. moom bañul ne sëriñ am na de dafa ne ñi nga xam ne doon yi defub safaan nan. nangu naa mais papa xam naa tey moom kunkande li mu àndal am na doole lool suñu micro yaa ngi fay di tàkk ah yaa ngi fay écran écran bi ci sa ginnaaw ni yow ak ñoom waa ak Safia écran ba sax fay na ah Benoît dimbali ñu ci rek euh, euh, kunkande bagage bagage yi mu àndal moo bari doole li ma jaaxal mooy sëriñ bu mag dafa ne. Hmm. doomu aadama jant bu génnee àdduna. Hmm. nu tëral ko. jël ay gàllaajam sàng ko ko te dajul nee na daa xaru. waaw d'accord donc ma àggale donc Safia pour répondre question. nee na nga ma doon. xanaa kon gàllaaj am na. Mm-hmm. Hmm? d'accord papa ma àggale. Ah? dégguma nga déglu man. ba non may leen ma deux secondes ma àggale balaa may perdre sama kii xamuma papa man kunkaange sax xamuma kan moo xam gendarmerie mënoo def loo xam ne papa day noppi kan moo xam gendarmerie front de terre man damaa dëkkoon ci biir gendarmerie front de terre man fa laa dëkkoon xamoo woon benn maire bu neex maire Faala. ak kañ maire Faala waaw waaw mooy sama yaay moo ma jur ndeysaan d'accord Koungheul defal ma loo xam ne papa. may pare mi daan jógee grand waaw di ñëw gendarmerie front de terre. kookay sama yaay. man moo fi man ragaluma Koungheul de <laughs> man li may man ragalu dama ne. demal nga woo Daba Boy. d'accord donc. Euh, demal nga woo Daba Boy. d'accord ma mm, àggale li ma doon wax Safia sànq posé nga ma. man ku dëkk gendarmerie front de terre question bu importante. donc aussi j'aimerais bien ma ma indi ci éclaircissement colonel yeeg ñëpp ko euh, Safia da nga gis jigéen joo xam ne damay joxe juste exemple dafa yor cent mille francs dem ci benn sëriñ mu jox ko ay saafara valeur u cent mille francs mu ñëw teg euh, nga gis jigéen boo xam ne am na cent mille francs dem jël ci benn somme dem jënd ci ndawal ñoo togg ci lu neex pour bégal këram mhm. bale raxas ba mu set dem ci kenn mu jaay ko ay baax baaxam jaay ko ay ay huile de massage am jaay ko ay yoo xam ne dafay bégal borom këram mu jox ko mu lekk ba suur jox ko mu naan ba màndi euh, waxtaanal ko bu dee jëkkëram dafa bëgg ku ko feccal mu feccal ko ñoom ñaar ñu kaf fooree bëri mu bégal ko ci ay astuce ba mu baax kële à place mu def la ko war euh, dafiy nekk di diwoo comme Benoît wax na ko sànq diwoo yu xeeñ xun tëdd euh, ñaar ñooñu pour yow ci ci li ma yaakaar rek kan la ci sëyam kan la ci jëkkëram war a mën a gën a kontaan kële dèjà ma nga tëdd ak xet buy neex ki am jotu jëkkëram tout à fait donc moi ma me dis que des fois astuce yi sax mën naa raw yenn saafara yañ lay jox du yëpp nag mais astuce yooyu fan lay yem maa ngi ñëw maa ngi ñëw c'est-à-dire euh, l'idée de à ce que euh, nga bégal sa boroom kër nga dem ci sëriñ ni ko euh, defal ma defal ma saafara boo xam ni dafay tax donc nga dem ci sëriñ du yegg fenn de du yegg fenn. maa ngi ñëw xam lu tax ma na dina yegg fenn maa ngi ñëw léegi toon la li ndax dina àgg fenn mhm. des fois nga dem ci sëriñ ne ko defal ma loo xam ne mhm. defal ma loo xam ne day tax maag sama borom kër gën a juboo mhm. loolu rek nga ko sant euh, nga jël cent mille francs def ko fa yow euh, ak ku choisir bañ a dem ci sëriñ ba jël cent mille francs yooyu dana ci togg lu neex dina defal këram ba mu set taal cuuraayam ba mu mm-hmm. neex mm-hmm. Euh, jënd ay yit li li nga xam ni jëkkëram dafay kontaan ci ay astuce li neex bën waa neexu la yow donc mais li neex sa borom kër nga dem jënd ko bégal ko kaf mu kaf ngeen kaf foo reetaan euh, kër kër ga set jàmm ji bari kooku dafay am jàmm deful saafara deful reen deful sunguf mais jëkkëram dafay kontaan te boobu boobaa euh, mbëggeel bu bu naturel lay doon kenn sungufu ko kenn reenu ko te pour man mbëggeel bu naturel boobu mooy dem ba ilaa yu dafa am ah. ñaar yoo wax ñaar yoo wax benn bi nga ni dërëm am na maaraa yoo xam ne bu njëkk dërëm lañu daan def hmm. effectivement di faj ay aajo hmm. mhm. maaraa yooyu yéen doo leen fa dem parce que yaakaaru leen yéen a wax ni Euh, suuf bu la sutul du la may. ker ker moo tax maaraay yi léegi. dañuy am 4-4 am salon bu baax. bu baax dëkk fu baax. bu baax boo ñëwee da ngay yaakaar ni. sa aajo ba nga fa andi da koy da fi ngay fi nga koy yaakaaree. Mhm. mais dematul leen ci borom néegu ñax yi parce que yéen a wax ni suuf bu la sutul du la may ker. du la may ker. nit ñi di nga senegal nit ku nekk boo jaaxlee ca la nga xam ngay dellu. gis nga réew mi dañoo dellu ci li ñu xam. Hmm. mooy ci wàllu sëriñ. sëriñ. bi sa yaay ëmbee ngay lañ koy takkal calaw waaw ak wat mu juddu ñu defal ko tokkantal waaw yóbbu ko kër ga jël paaka ak bale di ko geganal ko ci ñi nga naayal ko ak xoroma këriñ ak xoroma këriñ di ko geganal merci mu war a mu fer ñu ñu ñu andi sëriñ waaw euh, mu war a dem jàngi ñu sangat ko waaw examen ñu sangat ko muy concours ñu defal koy ñaan ñaan kooku day defee ni ñaan mooy faj lépp waaw léegi bi nga xamee ne nag Sénégal yi dem nañ ba nga xam ne ñoom gëmatuñu lenn lu dul ñaan waaw ci la sëriñ dax ko sarlatan ñëw moo fees nag dell ci réew mi. yaa ngi yaa ngi may rejoindre. déjà indirectement déglu ko déglu ko may ma tuuti. yaa ngi dégg dem charlatan ñëw. charlatan ñëw parce que léegi tey jii nii ku ñuy wax ni ku ñu la bëgg a wax ni la kaay dem ci péer ma ngóone yàlla may na ko baatin bu dee wax de nga dem ci péer ngóone fekk ko mu sol yéree sagar yor kurusam. nga xeeb ko nga xeeb ko bu la waxee cent mille francs doo ko ko nangoo jox. nga xeeb ko doo ko ko jox. doo ko ko nangoo jox. Mhm. mais ki nga ñëw mu jéem mu jël benn 4 4 30 millions <laughs> dugal la ci euh, salon boo xam ne amul sa kër. Uh-huh. bu lay ne deux cent mille nga fay ko. Uh-huh. yaa ngi dégg bu baax ma saa di kër réew mi ñoo gëm wàllu sëriñ. ñaareel ba moom mooy gis nga euh, lu am la lu ñu gëm la bëri na parfois ku wax ni gëwuma sëriñ fekk daa sangu soog a ñëw. wala mu takku soog wala mu takku wala mu takku soog a ah, wala mu takku soog a ñëw. teddu ko euh, gis nga. bu baax après ci la ñoom konkaanke ñi ñoo ñoom ñëpp daal di daw dugg ci ré ci affaire ci affaire ci affaire ci affaire sëriñ moom lim na ko mooy da ngay gis benn oustaz buy firi ci télé sax jekk ba si yàgg ñëwoo ko mu commencé ñaan animateur yi daan jël micro di jox sëriñ si genn wàll gi yëpp léegi ay ay ay ay ay sëriñ lañu. Euh, kunkaa nga bërki démb baatin bi mu am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp benn waay bu nekk Italie nax na ko. ci téléphone waaw ci téléphone. kunkaane waaw. Euh, nax ko ci téléphone. ba kunkaane woo ko téléphone. ni ko seetal ma mu seetal ko génneel koy weexal fa mu mujjeeg waa ji mooy ay cufaay mujj euh, muy capturé Euh, ci ay saaga mujj muy cap kunkaanga di di di capturer boobu nga doon capturer loo ko doon doyee kunkaanga ne nax nan la waaw dinaa ko tontu tey mooy saay-saay bi ne woon Italie ne daf may piégé waaw xam nga tey man sama barab bu may liggéeyee am naa ay ndaw yoo xam ne ñoo may teel sama téléphone yi waaw li may wax ak client daanaka bariwut waaw parce que maa ngi samay biir pouvoir wala ma ne sama kurus yaa ngi dégg. waaw. caay caay gi nag bu mu demee ba ci biir. waaw. wax ne dafa bëgg wàllu ñaan yàlla. dem ba ci biir rek na commencé indi ay waxi tappale. comme ay garde corps nga doo sëriñ mënoo xar géej nangam nangam. di commencé di la mbalak daal. waaw. man newoon naa gars yi coupé leen ko parce que caxaankat la fookat la. yaa ngi dégg. Mhm. mais heureusement nag ñun dañ ko.